boo xamante ni bu réew mi xam la rawatina yi tamit bitim réew doon journaliste boo xamante tamit bu xereñ ci liggéeyam yàlla dogal nag ñu arrêté ko fan yi ñu lu toll ci ayu bis journaliste yi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi ñoom it ñu jóg di ko soutenir ngir ni mu leen ko daan defale ndax ku mel ni ma jàmbal jaañ bi ñu ko fi jàppee Euh, moom mi bokkoon na ci ñi nga xam ne doon nañ ko soutenir ak ñeneen euh, taxaw seetlu bi nag dinaa ko jàngat ñett wala ci ñeenti point yoo xamante ni moom laa koy jàngate waaye maa ngi ñaan yàlla wërloo ma ci dëgg ba gisloo ma ko mu waxloo ma ko ma jeexal kàddu yi foofu bu ko defee benn bi mooy <coughs> dafa mel ni bu njëkk bi mooy journaliste yi dafa mel ni ñàkk ànd gi feeñ na ci yëfi Pape Alé yi gën na cee feeñ ndax euh, ñoom bu fekkee ne yàlla da leen boole métier mi ñu bokk ko war di soutenir mu doon métier mu noobal métier moo xamante nii li ci nekk ci yiw ñi koy màndarga sax di wax ne métier mi fan la toll dañuy wax ne yonante yi daanan ko def ndax mooy jottali message euh, ak daxwa ñoom ñi ñu koy def nag kon ba noppit fii ci sunu réew ci pouvoir yi nga xam ne moo gën a jëm kaw journaliste def cee bokk wax na ne bu dul quatrième pouvoir di troisième wala yooyu kon wane na ne métier la moo xamante ni mu noble la métier moomu nag yàlla dogal ñoom ñu àndandoo nii ne dañuy xeexle Pape Alé ba wax nañ ne ajjuma jii di ñëw danañ def manifestation doxu ñaxtu ngir ñu génne Pape Alé fële mu nekk ci seeni kàddu nag danga nga ciy dégg njuumte loo xamante ni loolu njuumte laa ko mën a tuddee mooy Pape Alé feedu palaasam dëgg la kenn yéenewu ko muy palaasam mais fee du palaasu kenn palaasu ku juum la ak ku jubadi yooyu nag ku nekk la mën a dal ku juum ak ku jubadi loolu ñëpp lay dal day dal daanaka nit ñi foofu lañ xaw a séddali ko boo gisee luwaa nekk fi luwaa ñooñu rek ko tax a jóg mooy ki nga xam ne dafa juum ak ki xamul ak ki nga xam ba noppi daa féttéerlu ñooñu moo ko fi tax a nekk loolu nag mooy ñi séddalikoo nit ñi bu ko defee foofa tabaxaluñ ko Pape Alé tabaxaluñ ko journaliste yi tabaxaluñ ko ministre tabaxum chef religieux yi tabax ndax foofa ku fa dem di nga fa fekk koo xamante ni moo la gën boo fa toogeetu ku la gën fekk la fa kon béréb ba du bérébu diw sàngam la ak du diw sàngam loolu waxin woowu ñoom dañ koy waxee benn bi ci des ñoom ñàkk a gi ak ñàkk ànd gi loolu day feeñ ci seeni débat mooy ñoom boo leen gisee ci télévision yi dañuy xool ne ñii journaliste président Macky Sall lan wala ñii journaliste bu posé ci opposition bi la loolu moom dafa leer nañ télé boo dem léegi organe boo dem am na ko fa nekk koo xamante ni dafa nekkal état bi suba ngoon guddi bëccëg am koo xamante ni dafa nekkal opposition bi guddi ak bëccëg ñoom lay défendre ñoom la am na émission yoo xam ne sax ku bokk ci diw sàngam doo fa ñëw ak yoo xam ne ku bokk ci diw sàngam doo fa ñëw loolu nag jàpp naa ne njuumte la ak erreur la bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy def bi ci toppaat euh, bu ne dañuy dox doxu ñaxtu am ñoo xamante ni du ñu ñëw wala ba tey jii rek daje woon nan waaye nan ko séentoo woon ci xumbaay ak nit ñi mobiliser wu ñëwunu fi te ñoom képp kuy mobiliser wala ngay dox doxu ñaxtu journaliste yi ñooy ñëw ci sa mbir ngir yëkkati ko mu jëm kaw seen mbiru bopp nag bu ñëwee nanguwun koo yëkkati wala ñenn ña nekk fa ña ca des combat ñoo porté xeex bi ñenn ñi bañ koo porté vraiment loolu kenn xamul lu mu doon ñenn ñi toog seeni rédaction ñenn ñi toog ñenn ñi man du dem booy bi li mu def dafa garaaw booy bi nangam man kenn du ma gis ci yooyu dëgg la boo toogee ci sa antenne cof ci tuuti nan ko tijji nangam mais jëloo ci benn combat yi combat pour mu jóge fee mu nekk defoo ci dara ak nga nekk journaliste boo xamante ni ndax buñ xoolee ku mel ne Aïssatou Diop Fall taxaw na wax ne Pape ale wax ca lam ci bëgg a wax barki dem bi mu dalalee ku mel ni euh, Pape Djibril ñu ciy wax da ngay xool ne man ñaar nit yi ban la ci ndax koo xam yow barki démb nee nga nangam nangam fee wax ca la nga ca bëgg a wax tey nga dikk fi naa yërmande ak yooyu loolu day mel ne wax dëgg yàlla nit ñi ak journaliste yi seeni mbir kenn xamut foo ko mën a classe ndax Pape Alé wax dëgg yàlla jàppoon naa ne war na ëpp na lii. benn bi ci desaat dañoo wax ne président Macky Sall dafa waxoon moom moo ko def man feek bi fi toogee ba léegi tëjaguñ fi benn journaliste te tant maa ngi fiy nekk kenn du tëj benn journaliste. kon loolu mooy deuxième point bi loolu day mel ni kon président Macky sàll mooy tëj mooy tijji te damaa jàppoon ne mbir yi mbiru eh, six mooy tëj mooy tijji waaye bu nee bu ma fi nekkee ba léegi kenn te duñ ko tëj ñoom it ñu ñu baasewu ci ne président nee na woon feek mi fi nekk duñ tëj benn journaliste loolu jàpp naa ku jubadi ak ku dëngal foofu moom dañ la faa war a yóbbu ak ku man di doon rek loolu loi moom nekkalu fi kenn lu dul am réew la fi nekkal di protéger nit ñi di leen jox seen àq ñi nu xañ seen àq ñu jox leen ko dëgg la bu dee wàllu kaso ba kenn du ko yéene Pape Alé kenn yéene ba jonne tey ci ñi bëgg mu jóge fa tey tey tey sama kàddu yi laata daanu ci laa bokk ndax yi kenn yéenewu ko kenn euh, beneen bi ci desaat mbir mi dafa mel ni mbiru waa APR la ak Pape Alé te man damaa jàpp ne mbirum yoon la ak Pape Alé surtout bu ñu déggee waa ji sax man li Pape Alé wax xawma ci lan mu loi bi xaw ma lim wax lu tooñ la wala ñàkk tooñ la man xaw ma ko wax de yàlla xaw ma waaye ñoom ñii gëstu mbir mi di ci dox journaliste yi war na noo xam ne paab dafa tooñ wala dañ koo tooñ su fekkee dañ koo tooñ nan ko génne foofu bu fekkee dafa tooñ nan ko ñaanal njekk ndax tooñ moom njëkk rek a ci yoon yonante bi salaa salaam dafa wax ne bu sa euh, xarit tooñee na buñ ko tooñee na ko faral buñ ko bu tooñee nga faral ko mun ne ko nun koy farale mu ne bu buñ ko tooñee bu tooñee da koy wax ne ko saawaay juum nga yaa tooñ ñii nag dégg naa ci ñenn nag ci journaliste ñu ne danoo war a porter bala noo xam ko tooñee dañ nan porter combat ba mu jóge fee mu nekk ñu soog a seet nu muy liggéey ñoom wanewun sax jéemunoo wër ne daf dañ koo tooñ wala tooñunu ko li ñuy wax daal mooy na génn foofa foofa du kéem journaliste yi ñu ngi yàq seen àq ñu ngi leen di delloo démocratie ngi delloo ginnaaw Eh, di nettali lu yàgg Macky Sall ba fi nekk moo ko jàppale woon moo ko jàppale woon ak jàppale Macky Sall googu tamit na fekkoon ne lam ko doon jàppale tamit bu fekkee dëgg la ba jonni tey bu demee ba gisaatut dëgg it dafa war a di wër dëgg te jàpp naa ne noonu booy analyser da nga yëg ne wax dëgg yàlla paap noonu la du journaliste bu ni korampo boo xamante ni xam nga ko ci wala journaliste boo xamante ndax jàpp naa ne fi ñu toll. bu fekkee wut alal wala wut dara rek ñi ko yor ñoom ñoo ñoo ko gën a soxla euh, te ñoom la gën a dumóoy bu fekkee ci ni muy liggéey bi ngay njëkk a wax nag mooy erreur bi am mooy Pape kenn waru ko bàyyi muy nekk ci ay live ak ay site internet ak seen site internet sax niveau bukki waaye nan ko ànk bu fekkee mënuñu koo jël ci organe yu baax yu mag yi fi nekk nan ko protéger boog wala ñu jàppale ko ba mu yor site internet boo xamante nii bu bu bu bu àgg ci niveau yi yëpp àgg lay doon xam ne lépp lu si si daanaka télé lay am ndax papa yooyowut rek ñu bàyyi ko mu toog di live ci téléphone ak yooyu war naa dépasser foofu fi mu yor ci niveau yor ko ci garaat yor ko ci responsabilité doon kooku war nañ koo jël bu nu bàyyi suñu doomu réew turtu gone la carrière des na lu bari macha allah yàlla na ko àggale mu doon koo xam ne ku jàmbaar lay tamit ku mën débat yu bari ci réew mi tamit mu ci wax ba mu dalee wax troisième mandat boobu journaliste yi daf mel ni ñu ci bari ñu ngi tëdd di nelaw léegi lan ni rey ci télé bi ko wax mu naa troisième mandat dina am ak du am waaye boo ko Pape di wax ko laaj ñoom ay Aminata Touré ay ñoom Omar Youm ak ak euh, ministre Cissé bi ba mu koy wax ak yooye booba ñii ñëpp waxuñu ci kon Pape ku mën a teel a alerte la journaliste la boo xamante ni dinay analyser lu ñëwagul <coughs> beneen bi ci desaat mooy ñi ànd ak Macky Sall waa APR ba ci Abdou Karim Fafana mi dégg naa ko muy wax naa moom mu yore communication kii naa Pape Alé man dama mujj dama ko génne ci kii journaliste waxoon naa ko fii ne bu fekkee yaa ko ci dugaloon moom mën nga ko ci génn bu fekkee nag da ko cay fekkoon mu nekk ci yow moom wax dëgg yàlla waroo ko génne ci kii journaliste bàyyi ko rek mu doxal liggéeyam yow it yaa ngi défendre sa kii ndax yenn saa yi ñu wax la ne ci Ousmane Sonko nga ne nangam te loolu lépp nit ñi dañ laa comprendre xam ne da ngay défendre say intérêt mais comme arbitre woon nag wax dëgg yàlla loolu it da ngay nangu rek li nga kii waaye Pape moom journaliste cent pour cent la euh, beneen bi ci desaat mooy bu fekkee ne journaliste yi jubóowuñu yàpp naa ne li ñuy xeex doonul xeex boo xamante nii dana réussir te Ousmane Sonko waxoon na ko fi benn bis ne woon Euh, ñun suñuy xeex suñuy àq ak di ko xeex du ñun rek ndax lii fekk dalu yow doo ci jéem a jóg di ko xeex te Pape Alé lii muy wax dañuy dégg bis bu nekk politiciens yi di wax lu gën a garaaw lii te du leen tee aje seen kër du leen tee reere seen kër bis bu nekk ñu gis fii ab politicien mu def benn conférence de presse daanaka A ba sedd amul benn groupe bu muy bàyyi benn fu muy bàyyi fu mu laal ne diw sàngam ñooña wax te ñooña wax te ñooña wax te ñooña bana xaaw te xam nan fa muy reere xam fa muy ndékkee te kenn mësu ko cee këreel benn problème li muy wax moom li Pape Alé wax ay politiciens ngi koy wax su ma nee politicien mën na maa bañ a cité turu jàmbur waaye ñi koy wax bare ku mel ni Sidi Gassama ak Alioune Tine wax nan ñoom ñooñu te ay kii leen nee na nan bàyyi Pape Alé mu dem mu dellu këram nan ko bàyyi mu dellu këram lii nag li muy jural Pape Alé daf koy jural àdduna bi gën koo xam carrière am gën a jóg ci kaw sit internetam bi sax man jàpp naa bu fi jógee ba léegi sax abon abonnement yi ñu ngi gën a yokk jàpp naa ne day gën a kii te jàpp naa ne bu fi jógee euh, jàpp naa ne mën na nit na ko sénégalais yi jàppale defal ko benn aide mu mën a defar site internet bi ba mu doon boo xamante ni bu gën a responsabilité lay doon loolu jàpp naa ne bu fi ñëwee sénégalais yi nañ jóg ñu defal ko benn quête boo xamante ni lépp lu mu soxla ci matériel soxla ko pour siitam bi gën a avancé loolu na ci nit ñi gën a jàpp ñu gën caa abonné loolu jàpp naa dina ko may te dina ko may aw turit te jàpp naan ne sénégalais yi loolu mën nañ ko Ahmed Aidara mii ñi ngi ko doon xeex tey lan la fi doon Ahmed Aidara doon na fi euh, ab maire doon fi député doon fi nangam te Ahmed Aidara mii am fi site internet am Ahmed Aidara jàpp naa ne bu dee ci wàllu njàng Pape Alé ko gën a jàng lu ko may xeex ko rek di ko xeex moo ko moo ko may li Pape Alé nag jàpp naa ne eh, fii nu toll waratuñ koo bàyyi mu nekk rek benn Pape Alé nii waaye war nañ ko soutenir bu baax ba yokk niwam ba xam ne nag ah, Sénégal moom du benn askan wala benn xeet ñoo ko moom ñoo ko bokkandoo te jàpp naa ne woon jëru ko boo gisee am réew mag baax ci Ablaye Wade boo gisee yu bare bari mu ko doon dummo yu ñu naa góor gi daa ragal ak góor gi dafa nangam yooyu yëpp dafa xam ne réew boo ko yoree ci moral ci moral nit ñi fexeel ba nu moral ba nu bëgg la ragal bu buñ la ragal bul bul fexe ba nu ragal la dangay fexe ñu bëgg la buñ la bëggee dana am yoo xam sax ñoom ci seen bopp ñoo koy jombal seen bopp buñ bëggee wax dara wala ñu bëgg koo def ñoo koy jombal ndax koo xamante ni boo waxee gis nga euh, communication benn communication rek moo am mooy da ngay communiquer ngir nit jot ca bu ca jotee bëgg ca wala mu mer ca saa boo ko defee noonu rek ba mu ba mu àgg ca yow réussir nga li nga doon def par àlema li mu doon def journaliste réussir na ci ndax li mu bëggoon ñu mer ci wala ñu wax ci réussir mais buñ ko bàyyi woon yii mu wax yëpp yu mu yàgg a wax la yu bari yu mu yàgg a wax waaye buñ ko bàyyi woon nii fi mu toll kenn problème bi ñu bari duñ ko xam sax mais fi mu toll nii nu ko kii nii réussir na ci ndax li mu bëggoon mooy ñu mer ci wala ñu kii yi fi mu toll loolu nag mooy wane ne message am àgg na fa mu bëggoon ndax képp kuy def communication bëgg nga ki ngay def mu jot ci wala nit ñi jot ci mais nag jot nañ lii daal benn la politiciens yenn yi tamit ñi nga xam ñoo nekk ci opposition bi ñu ngi koy soutenir soutenir bi tamit kenn du xam boo leen ko doon laaj ndax dëgg la wala du dëgg ndax tey yow ku la waxal wax sa noon dara wala kii nga soutenir ko te bu waxee ci yow nga ne ku mel ni Mimi Touré mi bind na soutenir ko man tey jii ba Mimi di nekk fële. ca ca Macky Sall su fekkoon da ko wax bu ko soutenir tamit xam naa ci mii mi bu ko soutenir tamit day wax nañ ko bàyyi ko loolu affaire yu yoon la sama yoon nekku ci mais nag lii da jël da koo jël personnellement wane ne nañ ko bàyyi mi ngi ci ginnaawam di ko soutenir kon mooy wane ne lii Pape Alé def moom mi ngi ci ginnaaw mbir yi nag buñ ko lijjantee nii nañ ko lijjantee ci lii dëgg la ak du dëgg waaye buñ ko lijjantee ñii dañoo nekk APR ku génn ci APR koo laaj mu ne la Pape Alé li mu def du yoon Pape Alé dafa jeng Pape Alé dañ koo war a tëj ku mel ni mu saa Diakhaté nga xam ne moom bu nee nit nu mu tuddati nit dafa wopp mu ne na dee bu nekk ko dee na nu mu tuddati bu nekk ko da da dee na mu ne na dem sawara nit koo xam amaloo ëmbaloo kenn kenn kenn ëmbaloo ko aw yu ci yow lu nekk nga ne nangam Ousmane Sonko bi ñu laajee ne bi mu génnee ne daf doon defaat conférence de presse di wax Lagos 6 bi doon laaj mu ne dañ ko war a tëj ci kaso bi Cheikh Omar Diagne mu ne dañ ko war a tëj Abdou Karim mu ne dañoo war a tëj koo xamante ni lu ñu wax ci diw sàngam nga ne nàngam euh, imaam kii nga ne dañoo war a tëj nit da ngay yor xol yoo xamante nii da ngaa war a yéene sa moroom bu ko nattu jolee wala njuumte nga waxee ko ci anam bu baax kii kat li mu wax man li ma ci gis njuumte la wala li mu wax du dëgg wala nangam ak nangam. te ku nekk xam na ne barki démb am na journaliste bu def lu am solo euh, yaakaar naa Babacar xaw ma mel ni ma fàtte naa sant kii bi xam naa daal ku waxoon benn information dikkaat di ko rectifié fiiwaat loolu lu baax a baax ci journaliste la nit ki da ngay juum xawma ma miin la xaw ma miin waaye anam bi mu ko defee sax moo gën a sérieux moo gën a sérieux expliqué ne ne man comme lundi ba lundi laay dikk di ko defaat te gis naa diggante bi moo tax sama page Facebook ma def ca loola ngir tiireloo attention ak ñi ci ki xam ne te laa def doomu adama ji day juum bu juumee na ko nangu mais journaliste tamit du yàlla du kenn du malaaka du dara même bu doon kenn leen su yooyu sax dafay juum kiy juum nag na nanguwaat njuumte surtout nga juum ci deru nit suum nga juum ci deru nit loo waroon a waxal nit lu lu rafet lu mu def nga waroon a juum ca surtout nga juum ci lu ñaaw ci lu ñaaw loolu moom dafa garaaw juum sax waxal nit ki lu baax moo gën garaaw nga juum waxal ko lu bon loolu dafa garaaw kon ku ci juumati nangu ko surtout nag yéen ñi xëy ci nit ñi ak di gont ci nit ñi wax yàlla loolu it war na ko noonu Pape nag moom jàpp naa ne daal lii nattu la bu jaar boo xamante ni jaar na fi waaye nattu la boo xamante ni jàpp naa su ci jógee dina xam ne am na lu ko yàlla dencaloon loo xamante ni faaw bala caa jot mu dem ca kaso ba am na lu ko yàlla dencaloon loo xam ne daal jàpp naa bala caa jot faaw mu dem ca kaso ba ba ñëw.